الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان نود أن نذكر زكاة الفطر وأحكام العيد إن يوم العيد يوم فرح وسرور لمن تابت سريرته وخلصت لله نية ليس العيد لمن لبس الجديد وتفاخر بالعدد والعديد إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد واتقى ذا العرش المجيد وسكب الدمع تائبا راجئا يوم المزيد أخي المسلم إليك وقفات سريعة موجزة مع آداب العيد وأحكامه أولا أحمد الله تعالى عز وجل أن أتم عليك أياما أيام هذا الشهر العظيم وجعلك ممن صامه وقامه وأكثر من الدعاء بأن يتقبل الله منك الصيام والقيام وأن يتجاوز عن التقصير وزلل mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci tur yàlla tabaraka wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu bëgg a fàttali sunu bopp fàttali mbokk jullit yi lenn ci attey muurum koor ak julli korite julli korite feet la boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jógee màkk ñëw Medine dafa fekk yahud yi ak nasaraan yi di feetu mu ne lii day bi ko gaa yi laajee bi mu leen laajee ne leen lan ngeen di feetu ñu ne ko ñu ngi feetu bis bi nga xam ne ci lañu yàlla tabaraka wa taala dimbale woon lawal sunu noon firawna yonte bi gis nga dafa participer ci feet boobu dane da koy da koy woor waaye mu dàqal jullit ñi bépp feet boo xam ne lislaam indiwu ko mu ne leen yàlla tabaraka wa taala remplaçal na leen feet yi ngeen fi fekkoon yàlla indil na leen ñaari feet yu ko gën muy korite ak tabaski kon mu nekk bisu mbégte kontante ci waa joo xam ne dafa satal bakkanam ku sellal yéeneem kii la feet bi nekk ci moom jaamu yàlla tabaraka wa taala mbokk yi feet du sol yére yu bees du lekk yàpp du rendi xar wala rendi nag feet wala ngay tiitaru ci am-am ak melokaan ak jëfin waaye feet dafa ñeel ki nga xam ne moo ragal yàlla tabaraka wa taala mu moytu borom gonganaay gu mag gi mu tuur ay rongañam yaakaar yàlla tabaraka wa taala jéggal ko bis bu muy fay jaam yi ki xam li kooku moo feetu mbokk jullit yi ay taxawaay a ngi nii yoo xam ne ab jullit war na ko taxaw bi ci njëkk mooy ginnaaw ba yàlla tabaraka wa taala mayee ñu tal ak fekke kattan ñu woor weer wi ba yegg si fii bay waaj a jeexal jullit bi war na sant yàlla ba ko yàlla boole ci ñu wooroon yàlla boole ko ci ñi fanaan ñi daan fanaane naafila waaye yàlla boole ko ci ñi doon woor xoola nit ñi li ñuy bari bari bari am na ñu woorul te ay jullit lañu am na ñu woorul c'est parce que dafa am ay mbooloo yu ñu bokk mbooloo yi duñu woor am na ñu woorul dara taxu leen a woor lu dul banditisme ak caaxaan ak ñàkk ragal yàlla yow mbooloo yi yëpp yàlla dindi la ci boole la ci ñi woor waaye boole la ci ñi nga xam ne dañ doon woor di góorgóorlu di matal farata yi waaye bu guddee ñu taxaw di naafila santal yàlla sant yàlla dëgg la bala iblis fooyewul boolewu la ci nar ñi nga xam ne wooruñu weer wi te ñi woorul weer wi xamuñu ndax déwén dina leen di fekk te weeru koor ba weeru koor yàlla da ciy dindi ay bakkaar kon yow mi woor santal yàlla mbokk yi ñu bëri luñ ci ñaan lan la ñuy ñaan mooy yàlla mi taxoon ñuy woor ñu ñaan ko yàlla na nu nangul ndax bokk na ci li metti nga woor ba pare yàlla mu ne la nanguwuma sa koor loolu lu metti la kon ñaanal su jootal tuural rongoñ li nga gàttañ lu tuuti ci yu ndaw ndawaan yoo gàttañ lu ci weer wi pour borom bi tabaraka wa taala jéggal la ko kooku mooy première taxawaay ba war a taxaw ñaareel mooy bu ñu xëyee bu ñu yàlla mayee tal ak fekke ba ñu xëy bi su julli lan moo ci sunu taxawaay yusra'u at takbiru min min ghurubi sams laylat al iid ila salaat al iid qala taala ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون yoonal nañ ci ab jullit su ko yàlla mayee tal ak fekke ba koor gi jeex mu fekke bisu julli korite muy kàbbar fi tàmbalee jant bi di so ba bisu julli ga mu koy kàbbar borom bi tabaraka wa taala moo wax ci quraan ne na ngeen ci màggal yàlla na ngeen ci màggal yàlla ci bisu julli gi ngeen kàbbaral yàlla tabaraka wa taala ci li leen yàlla defal ci ay xéewal ndax ngeen sant yàlla tabaraka wa taala jullit bu yàlla may mu woor ba koor jeex yàlla may ko mu fekke ko mu fekke julli borom bi nee na loolu ma leen defal war ngeen ma cee sant war ngeen may kàbbaral melokaanu kàbbar yi nag nu muy demee jullit bi day wax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamd lii la jullit bi di wax ci ngoon giñ ne suba la julli gi ba bët seti jullit gi ba ba ngay julli ji ci lii nga war a nekk di kabbar yàlla tabaraka wa taala mu ne yoonal nañ sunnaal nañ ci jullit kabbar yi mu feeñal ko ci kaw bu fekkee góor la moom jullit bi ci jàkka yi lañ ko war a defee ak ci marché yi ak ci kër yi ilaanan bi taazimillahi taala wa izhaaran li ibadatihi wa shukri loolu lan lañ ciy wone mooy màggal yàlla tabaraka wa taala ci jàkka yeeg marché yeeg biir kër yi ngir feeñal ne ñun dañoo gëmoon dañoo gëm yàlla ngir feeñal ne ñun dañoo bëgg yàlla moo tax ñu koy jaamu di ko sant waaye yoonaluñ nag benn yoon benn waaye nekk ci jàkka ji yor micro di wax nit ñi di ci topp déedéet lii ku nekk yaa koy defal sa bopp waxuñu nañ ko def mbooloo kenn di wax nit ñi di répété déedéet loolu bidaa la ma anzala allahu taala biha min sultaan kenn ku nekk lii ñu wax nii yonent bi nee na yow yaa koy waxal sa bopp soo nekkee ca marché ba defal ko sa bopp boo nekkee ci biir kër gi defal ko sa bopp boo nekkee foo mën a nekk ci biir kër gi defal ko sa bopp ñaareel bi mbokk yi ci attey julli gi ñetteel mooy zakatul fitr soo wooree ba koor gi jeex war nga génne azakay muurum koor boo xam ne yàlla tabaraka wa taala moo la ko sant ci jeexitalu weer wi loolu lan lay jëriñ mu ne tuhratul lissaim ki wooroon ci biir koor gi am nay manqué manqué yu ndaw yu mu def xool na lu mu warul xool wala déglu na lu mu warul dégg wala wax na lu mu warul wax wala dem na fu mu warul dem wala tardeel na loo xam ne waru ko woon tardeel ndax yàlla moo ko moom su ko defee yu ndaw ndawaan yooyu nga def ci biir weer wi azaka bii ngay génne muy azaka murum koor moom moo lay laabal ci bàkkaar yu ndaw yooyu nga def minal laxwi ci ay waxi mbóosóor war rafas ak ay caaxaan lii nag azaka boobu mu ne tu'matun lil masakin miskin yi ñoo ko moom wa takunu sa'an saa lay nekk saa saa mooy lan démb rek maa ngi seetaan benn borom xam-xam bu mag ci benn chaîne bu tudd Arraaya mu ne saa mooy ñetti kilo moom loolu la wax téere bi ma yor borom dafa ne saa ñaari kilo la ak 40 grammes kon jullit bi ci bëgg a génn di génne azaka muurum koor diggante ñaari kilo ak liibar ba ñetti kilo munoo weesu fii ñetti kilo ceeb dugub mboq lépp lu ñuy lekk ci réew mi tàmbalee ñetti kilo ba ñaari kilo ak liibar fii nga mën a yem amoo leneen nag loo génnee soo ko ëppalee baaxul soo ko manquelee baaxul diggante bi nga yem ndax wax ji fii la nekk ñi ne ñetti kilo ñi ne ñaari kilo ak 40 grammes arbaina grammes ñeen fukki grammes kon ñu ngi soññ suñu bopp ñu xam atte yi suñu demee ñu def ko ngir yàlla tabaraka wa taala ñu bañ a topp ay bida ak i shirk ak ay aada mbokk yi lislaam nanguwul aada lislaam nanguwul bokkaale lislaam nanguwul bida lislaam an aqimu diin lillah yàlla rek saa yoo ci boolee sàmba mbaa demba mbaa keneen loolu nga génne wala loolu ngay def yàlla nee na man pare naa ci parce que diw sant la ko wala keneen sant la ko man yàlla man maa la ko sant tabaraka wa taala mbokk yi dinañ ko génne ci lépp lu ñuy lekk ci réew mi lenn ci borom xam-xam dañu ne dañ koy génne ci xaalis waaye texte bi yonent bi salaa salaam wax ne nañ génne azaka murum koor daf ko dàq ndax yonent bi lekk la wax waxul xaalis lekk la wax lu ñuy lekk kon génne ko ci lu ñuy lekk moo gën téeméeri yoon ndax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu la wax min attaami la wax ci lekk danañ ko génneel xale bi nekk ci biir kër gi nga yor dundam say doom xataa mbindaan bi nga yor dundam ci biir kër gi yow yaa koy génne sa soxna bu ëmbee sax liir boobu ci biiram da nga koy calculé waale génneel ko azaka muurum koor waxuma la ak soxna si nag képp koo xam ne mi ngi ci sa loos yow yaa koy dundal ci biir kër gi yow yaa koy génneel azaka muurum koor dinañ ko génneel ñépp ba ci liir bu ndaw bi waaye ban waxtu moo gën a baax pour ñu génne ko wa afdalu waqt li ixraajiha huwa qabla salaati al iid wa yajuuzu ixraajuha qabla al iid bi yawmin aw yawmayni dina dagan li gën a baax ci ay waxtu yu ñu koy génnee mooy balaa ñuy julli ji qabla salaati al iid balaa julli iid ji di am mu ne dina dagan ñu génne ko ci bisu iid bi waaye balaa ngay julli ji de soo demee julli ji ba ñëwaat amoo azaka muurum koor sarax nga am ku bàyyi ba julli ji ba ñëwaat di génn azaka muurum koor amoo azaka muurum koor moo tax su desee ñetti fan ci julli mën nga ko génne bu desee ñaari fan mën nga ko génne ci guddi gi mën nga ko génne ci fajar bi mën nga ko génne boo sangoo ba pare balaa ngay solu di dem mën nga ko génne boo reppee nag ba dem ba ñëwaat amatuloo azaka muurum koor moo tax ñu bañ a sàggan ay santaane la yu yàlla santaane yonent bi leeral ko ni ko yonent bi defee woon dong noonu lañ koy defee mu baax suñu lànkee yàlla daf ñu koy delloo man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad képp ku jëf benn jëf jëfee ko ni ko yonent yàlla muhammad jëfe woon yàlla da koy laxas ba mu dagar daal la koy delloo kenn du ko jël parce que defee ko ni ko muhammad defee mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ñu moytandiku bu baax a baax suñ koy génne ñu génne ko ci li réew mi di dundee ñu xam ne ñi ko moom aussi mooy miskin yi ñu jox leen ko ndax yonent bi nee na nañ leen musal ci laaj ci bis boobu ñeenteelu njàngale ci bisu korite mooy balaa ngay dem yow mi julli ji na nga sangu al ixtisaal wa tatiibu li rijal góor ñi ak jigéen ñi ñoo war a sangu waaye buñ demee bay parfum di xeeñu jigéen ñi bokkatuñ ci bépp jigéen bu musa def parfum sa yaram moo xam julli korite la moo xam tabaski moo xam yeneen waxtu yi la nga génn bépp góor gu mu xeeñ yaa ngi njaaloog moom kenn du la nangul julli lu dul nga sangu janaaba ba waxaat ko jigéen dañ koo tere xeeñu parfum di génn yonent bi muhammad saa sallam nee na ñaari hadis ku ko def njaalookan nga ñaareel bi mu ne kenn du la nangul julli lu dul nga sangu set kon dagan na nga sangu bi su julli mais bul xeeñu parce que jigéen ñi dañu war a génn dem ca jàkka ja hatta jigéen ñi indisposé sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da leen doon génne ñu dem ca bayal ba jul du ñu fekke du ñu julli mais dañuy toog déglu xutba bi ndax xutba bi dafa am importance yonent bi ñëpp lay génne bi si julli tabaski ak korite jigéen ñi nga xam dañoo gis baax sax da leen di génni ne kaay leen ngeen toog bu leen julli mais ngeen déglu xutba bi góor ñi moom tout le monde ñëpp la ñuy génni waaye fii ngay gis benn waaye boo xam ne day langar langar yi ci mbedd yi di tambaambalu ba waxtu wi raw ko du dem julli ji korite te ibnu taymiya lu mu wax lu leer mooy julli korite mu ne farata la santaane bu dëgër la mu ne kenn waru ko bàyyi mbokk yi sangu xeeñu ci góor ñi ak sol yére yi nga gën a baaxle yére yi nga gën a baaxle lañ wax imagineel ab julli di julli ji di sol jiin est-ce que jiin nga gën a baaxle ah yóbbul yére yoo xam ne mooy yére jullit nga dem yóbbu ko ci jàkka ji nga jullee ko bisu korite dañ la na solal ahsanal siyaab mais saa nga gis koo xam ne ah comme ab nasaraan bu génn ci ci lu kenn xamul ñu ñëw ci jàkka ji loolu du santaane lislaam lislaam dafa ne da nga sol yëre yi nga xam ne moom mooy yëre yi nga gën a baaxle rawatina yëre yi nga xam ne ñoom ñoo gën a nuuru yëre jullit nga sol yooyu dem jullee ji ko waaye bul yàq dañuy soññ ab jullit ci bisub julli korite mu bañ a yàq ci jënd yëreeg lu kenn xamul ci dépasse islam santaanewul loolu waaye sol yoo xamante ne tamit day buubu foo dem muy watatu al isbaal di direeku ngay wane ne ngaa ngande sol garambu boo xam ne boo rombee quatre personnes mu mu mu mu njatt leen loolu bokkul ci julli lislaam ci jamono boobu yaa ngi gis ñu xiif waaye mbokk yi bokk ci nga dem di wat sa sikkim ne da ngay rafetlu daa dem war sa sikkim bi ba mu set wicc bokk ci góor du wat sikkimam góor ci lislaam dañoo tere mu wat sikkimam yonent bi nee na wa afulliha bàyyi leen sikkim yi kon na nga bàyyi xel ne jouru julli soo watoo mën nga defaru waaye yonent bi nee na bul laal sikkim bi ndax sikkim même bu doon du julli korite wala tabaski dañ laa tere nga wat ko ab jullit bu góor du wat sikkimam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax mbokk yi ba tey bokk na ci lu lu ñu yoonal ci ab julit balaa muy génn bisu julli korite bëgg nañ ci yow nga lekk benn tàndarma ñetti tàndarma juróomi tàndarma saa yooy lekk na tóol li ngay lekk li gën mooy tàndarma benn ñett juróom ba juróom-ñaar ñaareel mooy balaa ngay lekk bu fekkee amoo loolu balaa ngay génn lekkal kenn du dem julli ji korite te lekkoo bu doon tabaski la doo lekk ba nga ñëwaat mais bu dee korité da ngay lekk doog a dem ndax bugguñu ñu kole ko ci bisu julli gi ndax or bisu julli dafa xaram waaw or bisu julli dafa xaram na julli toog fii nag dégg weer yu feeñ na fee ca Mali wala Gambie mu naan ah, man ma gisaguñ ko Sénégal soo wooree rek def nga lu xaraam soo wooree bisu julli na la leer ne def nga lu xaraam yàlla la ñuy jaamu jaamuñ nit dégg nga weer wi wee feeñ na wooral dégg nga weeñ wi feeñ na waril loolu la ñu sant fa man shahida minkum sahra falyasumhu loolu la yonent bi wax yàlla loolu la wax ku dégg weer feeñ na wooral ku dégg weer feeñ na waril jeex na amma toog fi naan nangam ak nangam dugg fii génn fii yooyu yeneen affaire la jullit yàlla lay jaamu kan ngay wooral kan ngay jullil ku dul yàlla tabaraka wa taala kan moo la war a jox wax wax nga def ak nga bàyyi ku dul yàlla kan yonentu yàlla muhammad moo ñu gën juróom-ñaar fukki junni yoon yàlla nëbb na ko weer moom muhammad toog ba bëccëg ab sàmmkat jóge ca àll ba ñëw gis waa dëkk bi lekk mu ne lu xew ma dina ñu ne ko dara xewu fi mu ne nit ñaa ngi lekk ñu ne ko ñun gisuñu weer wi mu ne bii gis naa ko yonent bi jox bilaal noddal na ñëpp woor bëccëg beneen bi ci kori la kon nag muhammad sallallahu alayhi wa sallam la yàlla wanul weer ma sama ñun ñi loolu beneen affaire la yal nañu yàlla jubal aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أيها الأحباب إن من أحكام العيد الصلاة مع المسلمين وحضور الخطبة والذي رجحه المحققون من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن صلاة العيد واجب ولا تسقط إلا بأزر والنساء يشهدون العيد مع المسلمين حتى الحيض ويعتزل الحيض عن المصلى سابعا لا بأس بالتهنئة بالعيد كقول تقبل الله منا ومنك بقي juróom benneel ci atte yi julli korite mooy julli ñi dañu bëgg ñu booloo ñoom ñëpp dem ca jàkka ja wala jumaa ja wala àll ba ñuy jullee ñu julli foofu julli ñëpp lañ bëgg ñu génn dañu yoonal sax ne bu ñuy dem julli ji buñ jaaree yoon wi bu ñuy ñëwaat nañ jaar yoon wële loolu tamit beneen atte la sooy ñëwaat yoon wi nga jaaroon bi ngay dem bul fa jaaraat jaaral beneen yoon loolu lañ jàngale ci lislaam waaye jàpp ne jamono jooju ñu ko doon wax l'islam amul woon nit tey l'islam am na nit nga def va et vient ñëwaat hatta boo yoroon oto boo jaalee ci route bi booy ñëwaat beneen bi nga war a jaar parce que loolu la yonent bi jàngale yonent bi li mu jàngale mooy dëgg leneen lu keneen wax waxi boppam la yonent bi dong la yàlla joxoon ci alquran ne wa ma aataakum rasul fa xuzu wa ma nahaakum anhu fantahu lu leen yonent indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen jeex na yonent li mu wax rek loolu la lu keneen wax mbiri boppam la ko kenn yónniwu ko yàlla muhammad la yónni mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ñu ne anna salaatul iid waajib julli iid dafa war su ne waajib mooy loo xam ne boo ko bàyyi da ngay bakkaar ñu ne du wàcc góor du wàcc kenn lu dul ko am ngant ku am ngant ku lislaam xam ne kii dafa am ngant kii daf feebar ba munta dem kii dafa am loo xamante ne lu urgent la loo xam ne il fallait que mu def ko ku mel ne docteur la malade baa ngi nii teew moom moom monte kenn nekk fa ñooñu am nañ ngant mun nañu mais keneen gisuma samay daal ak jënd utum awma yëre bu bees ak yooyu dëgg dëgg beneen mbir la yal nañ yàlla jubal mbokk yi juróom-ñaareel mooy suñu jullee bi su feet bi bu ñu dajee ñun jullit ñi dañuy ndokkalante ku nekk wax sa moroom taqabalallahu minna wa mink yal na nu yàlla nangul nangul leen loolu la ñuy waxante yal na nu yàlla nangul nangul leen yii ñooy atte bisu iid ñu war a mooy tandiku nag mu xaalafaat yi ci am mooy di bokk ci jàkk yi di yuux di yuux loolu bokk ci bisu julli loolu amu ci ñaareel bi mooy ñenn ñi jàpp ne guddik iid war nañoo dundal guddi gi ci jaamu yàlla loolu bidaa la bokk ci ñetteel mooy jagleel ko dem di ziyaare ji bàmmeel yi buñ ne asalaamaaleykum ci jàkka yi rek wala fi ñu daan jullee rek nit ñi jubal ci armeel yi loolu bidaa la bokk ci ñeenteel jaxasoo góor ñeeg jigéen ñi ci place yi ñuy jullee di buuxante ci buntu jumaa yi di buuxante ci buntu jàkka yi di buuxante ci buntu armeel yi loolu dafa xaraam kooku moom waxuñu ba dañ ko sib sax waaye boobu moom daa xaraam fépp fu ay góor ak jigéen di jaxasoo fu dul kaaba gi dafa xaraam foofu dong ngay taxaw jigéen teg la mbagg muy lu dagan feneen bokku ci mbokk yi ci yàlla atte yi ñu doon wax njàngale yi yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moo ñu ko indil kan moo ko jox yàlla tabaraka wa taala ñan la ko indil ñun jullit ñi ñun ñi ñun ñoo ko war a def yàlla du wàcc ay jinne du wàcc ay malaayika pour ñu koy def ndax ñun ñoo tànn ne ñun ay jullit lañ yàlla mu ne kon mbir yi nii la alquran daf ñuy wax ne maa kaana li muminin wala mumina ida qada allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul xiyara min amrihim warul jullit bu góor warul jullit bu jigéen yàllaa ko yonente ne nii la mu naan mais abadan yàlla su waxee amul poser question su yonent waxee amul poser question keneen ku wax nag war nañ laa mën a poser question ba mu des ñaar ñi imam ahmad nee na ida qaala allah wa rasuluhu fa bil ayni wa raas malik ne kullul kalaami yuxas wa yurad illa saahibu haza alqabr kenn ku nekk say wax dinañ ci déngi déngi di xool war nañ ko def wala waruñ ko def ba mu des waxu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam kon yonent bi moo ñu jàngal ne lii mooy atte bi waaye di soññ sama bopp fii balaa julli gi di ñëw xam ngeen ne ñu ngi ci fukki fan yu mujj ci weeru koor te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci la laylatul qadr nekk ci ay hadis yu ay sahaaba dogu ñu ne ñaar fukki fan la ak juróom ñaar te mu ngi nii di ñëw suñu kanam nan góorgóorlu guddi googu nga xam ne ci la yàlla wàcc alquran malaaka yi di ci wàcc ay xéewal yu dul jeex jàmm ba bokk na ci rek lu ñuy wan ne guddi googu dafa am xéewal malaak asamaan suuf si day fees del dafay xat ndax wàccu malaaka yi mais da ngay xool lenn tey tey nu ñuy defee laylatul qadr lenn ci ñun ñoo ci place bu mel nii takk rajo di sikkar ba bët set kenn du julli kenn du jàng alxuraan kenn du ñaan di yuuxu rek di jàng siira yonent bi saa salaam yonent yàlla Muhammad démb la juddu Abdallah guddi laylatul qadr kenn waru cee wax siira yonent bi yonent bi judduwul laylatul qadr yonent bi moomul laylatul qadr laylatul qadr yow yaa ko moom kon dencal histoire am ba mu judd boog bu fekkee ne dëgër nga bopp denc ko ba mu judd beneen bi mooy yor ay sabar nekk ci mbedd yi def ron di fecc ne da ngay màggal leetul qadr ba bët set loolu leetul qadr la loolu du leetul qadr yonti sal yonti yàlla Muhammad dafa jàngale nan la ñuy defee leetul qadr amul ci diine ci lenn loo xam ne ñun war nañu réer maal asaf dana ruslu tey Sénégal nga gis benn jaamu yàlla nit ñëpp di ko def normal nga ñëw Sénégal fekk neneen lañ koy defee da ngay tiit te loo xam ne dañ ko jàngale ci diine ba mu leer ne lii nii la nga gis nit ñi defee ko neneen benn misaal laay joxe tey mooy dernier vendredi bu mujj ci koor suñu yàlla dimbalee da nga gis tey nit ñi di julli fay faat mboolee mbedd mi foo jaar bu du doon du taw bi tey da ngay gis ay baas nit ñi di wax ci rajo yi di yuuxu ñëw leen julli fay faat boobu ban julli la kan moo ko santaane julli fay faat kan moo ko santaane laa wax ban yonent moo ñu ko indil fan lañ ko gis ci alquran fan billahi lazi la ilaha illa huwa ku ko gis fii boo ñu ko waxee suba ñu organiser ko ci jàkka ji bokkul ci diine ñu ne yow bi nga nekkee xale ak bi nga nekkee grand wala bi nga nekkee pas julli yi nga julliwul woon yëpp tey boo defee ñaari rakk rek fay nga lépp loolu xel sax nanguwu ko ba pare di ko di yuuxu ci mbedd yi julli fay faat amul ci lislaam ku ko def doo ci jële tiyaaba mais bàkkaar ngay am parce que yonent yàlla muhammad indiwu ko képp ku def bidaa xanaa jànguñu kullu muhdasatin bidaa wa kullu bidaa dalaala wa kullu dalaala fi naar yonent bi nee na lépp lu ñu organisé sama ginnaaw tudde ko diine bokkul ci diine te loolu safara la jëm ak boromam yonent yàlla muhammad moo wax lii nan yàlla woon dëgg wërsëgal ñu topp ko allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala tinabi allahuma ya musabbit alqulub sabbit qulubana ala taatik اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم السلام li xaamal ba pare